commandé woon UJOS ci Eva ah non livré nañ mako xam nga ni mom mom boy commandé rek mou lay livré wa baax na maa ngi lay xaar ma ngi ni sama keur wa baax na xaaratul je te rappelle deng wa sang bi waa lu tax nga teel a comment tu vas est-ce que ça va. ça va très bien ça va bien lu tanga nga la wacc dama nam sama yeuf billahi ma ngi ni ma la ro xam nga loolu sax. bis ni damay gën a féddaliwaat sama mbëggeel ci yow di la xamal ne la sama gestion entreprise yëpp teg naa ko sa loxo yaay sama nouvelle gestion non non chérie loolu pour lan la mais man ñi may liggéeyal dañ may liggéeyal ma leen di fay rek te lépp mën nga ko ndax moom nga jàng man maa bëggul nga def dara mais nag comme jàng ba pare léegi nag yaay sama gestionnaire d'accord te xam nga lu ma bëgg en plus mooy sama mot de passe yépp nga changé ma ko soxlawu xam benn code lépp lu ma soxla rek dinaa la ko laaj bi

yaa baax yaa gore yaa am itte yaa am kóllëre yal na la yàlla defal jàmm ak salaam yal na la yàlla làq fu yàq àggul sama xol sedd na si yow gis nga booy wax liy dugg ci man yàlla rek laa koy seede mais maa la bëgg maa la gën a bëgg léegi kon xaaral ma dem xamna war nga sonn préparer la quelque chose à manger. comme tu veux.